bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil aalamin wassalaatu wassalaamu ala asrafi al anbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaati alwahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax calayna bi maxrifati alcilmi wa xassin axlaaqana bilxilmi wa saxil lana abwaaba fadlika wansur calayna qadaa'ina raxmatika yaa arxama arraximin yaa rabbal aalamin mbokk yi bàyyi xel ci Sud FM seen rajo asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu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 mbokk yi bàyyi xel almisbaax ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen bëgge di leen ndokkeel bu baax a baax di bëkki ni ngeen di ànd ak ñun jotaay bi di ndokkeel bu baax auditeurs yi ci Sud seen rajo yëpp ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew moo xam ñu góor ñi la ak ñu jigéen ñi ci anniversaire lu Sud seen rajo tey ci benn fan ci weeru juillet wax nañ ne mooy bis bi nga xamante ne ci la rajo bi tàmbali woon a wax di ndokkeel bu baax ñi nga xam ne ñoo ko samp di ndokkeel bu baax ñi nga xam ne ñoo ci mas a liggéeyee ñëpp di ndokkeel bu baax ñi nga xam ne ñoo koy déglu di ndokkeel bu baax a baax nag ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel waxtaani diine yi nga xam ne moo fiy jaar mu mel ne buñ ko mënoon sax émission bi yëpp mën nañ ko cee def ndax su fekkente ne wax ji daa am njariñ jumtukaay bi ñuy jaare ba mën a wax ak nit ñi mooy rajo bi ci la ñuy jaar ba ñuy informer nit ñi man leen a informer ci wàllu actualité beeg information laa bëgg a wax ak yi nga xam ne moo ci aju te lépp rek information la maanaam li ñuy waxtaane nii ay information la ñu jox nit ñi ci wàllu diine waaye ci wàllu njàng may jàngale meeg yi nga xam ne moo ci aju loolu nag ñi nga xamante ne ñoo ko taxawal ba mu mën a am ameel nañ leen jukkal ñoo ngi jël suñu cant ak suñu ngërëm yëpp teg ko ci ki nga xam ne mooy suñu bunt ci ñoom te mooy suñu directeur di bay Omar Gueye mu jot leen ñu ko mbooleem ñi nga xamante ne nii ñooy kilifa yi kër gi ba ba muy àgg ci sëñ kër Touré mi nga xam ne moo ko jiite di beral cant ak ngërëm ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal nekkal ci kër gi ñëpp te. ñoom ñëpp doon ñu jàmbaare ñu baax moo xam waa rédaction bi la teg nuyoo beeg seenu cant ci suñu jigéen Adja Ndeye Marème Ndiaye mi nga xam ne moo jiite rédaction bi ak mboolem journaliste yi jël ndokkeelu techniciens yi ak mboolem ñi nga xamante ne ay techniciens lañ ci rajo bi teg ko ci loxol suñu mag suñu xarit Aline Badara Socé mii seen njiit waaye suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci administration bi suñ mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci commercial mbokk yi nga xamante ne ni ñooy yor sécurité beek yi nga xam ne moo ci aju suñ mbokk yi nga xamante ne ñoo yor wàllu oto yeeg dem ak dikk bi ñoom barxaam ak duudoog ñi nga xamante ni ñoom lañ àndal ñëpp yal na yàlla yokk leen a sàmm te barkeelal leen seeni liggéey ñoo ngi leen di ndokkeel bu baax a baax a baax a baax ci seen taxawaay di ndokkeel bu baax nag auditeurs yi nga xam ne kuy wax ñoo lay déglu te kuy wax ku nekk koy déglu moo koy dooleel ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu gën a suqali rajo bi ñaan ko mu gën leen a kàttanal ba lépp loo xam ne moom lañ fiy jàllale mu doon lu am njariñ ñun tawféex ji ñu fi am mooy ñëpp suñu xarit lañ ñëpp rek suñu xarit lañ suñuy am di jàmm lañ ak sama taalibe yu doy waar yi ma fi am yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax xam naa ku ko dégg dana ne ndax kon sëriñ bi doyut waar moo tax mu mën a am taalibe yu doy waar waaye maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ñoom Alsaan Wadd <laughs> sama taalibe bu mag boobu ñoom eh, defe naa sax moom mooy taalibe bi moo ko xasee teg ci loxoom rek dana ma nuyul ñëpp ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax di leen ñaanal borom bi nangul ñu te nangul leen biñ fi ñëwee ci jaaruk nekkuk Oustaz Alioune Sall akuk jàppulem ci la suñ borom subhaanahu wa taala dogale ñu ñëw fii ci kër gi di jéem a indi suñu wàll ci liggéey bi di ci góor góorgóorlu boobaak léegi di bëgg amub diir ñu dénk ñu fi ay émission yu wuute bi ñuy def benn la ci bi ñuy def ajuma ci ba cëkk muy xamtu 16h ba di h benn la ci yeneen jotaay yi nga xam ne jotaay yi Oustaz Alioune Sall la muy albidaaya ak alkitab te ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ ko ciy jàppale maak Oustaz Alioune Mbaye loolu mooy jotaay yi nga xam ne moom lañu fiy taxawee ñaan borom bi subhaanahu wa taala lu ci jub mu nangul ñu ko lu ci dëng ñoo ngi koy jéggulu te di leen ko jéggulu di beral nag bu baax a baax itam ndokkeel xarit yi nga xam ne ñoom ñëpp ci rajo bi lañu suñu xamante ak ñoom jaare ñuy bég lu ñuy def ba yéene ñu lu bari waaye di ànd ak ñun ci liggéey bi di ci ànd ak seenu jàppale seeni ñaan seen taxawaay yal na yàlla fay leen ñaanal ñi nga xam ne ñoom lañ doon àndal te jiitu ji suñ borom subhaanahu wa taala yërëm leen te xaari leen aljanna suñu yaay soxna mu Munina Kunta ci la bokk mag mu baax mu bëgg diine te bëgg lu baax man ak imaam Assane Cissé Seck ñoo nekkoon ay doomi ruwam sàllaaw euh, sama rakk yeeg sama mag yooyu mu jaboote ñun ñii ñooy doom yi nga xamante ne xam naa lu baree bari daan na ko waxtaanee ñun te diine ji ak daara ji tax ci moom laay jaare ñaanal mboolem ñi nga xam ne ñoo ñu doon bàyyi xel te jiitu ji ñaanal yaay yi nga xam ne ñu ngi fi tey ànd ak ñun ak suñu jigéen ñi ku mel na ñoom docteur Anna ja Cheikh Fadel Ka ak soppeek am di jàmm yëpp ñoo ngi leen di nuyu te di leen béggee yal na yàlla boole ñu nangul suqali rajo bi euh, def ko ba fa yéene kilifa gi nekk ngir bëgg mu àgg fa borom bi def mu àgg fa ndax loolu boobaa danañu amal njariñ te dana gën a amal njariñ liggéey bi mbokk yi gannaaw loolu nga xam ne dañ koy introduire rek ci anniversaire u Sud FM bi nga xamante ne tey noonu la jotaay ci rajo bi yëpp war a tëddee incha allah dogoon ko nag ñi jamono tëddee xam naa ne directeur dana fi organiser cérémonie bu rëy ni mu ko baaxoo defee waaye jamono jee xew-xew yee tax jombut ci eh, journal yi dana ci feeñ émission yi nga xam ne mooy jàll itam dana ci feeñ waaye taxawaay yooyu yëpp itam dana ci feeñ ci fàttaliku gi nga xam ne moom la Sud FM seen rajo def te loolu képp koo xamante ne day yëngutu ci média wala mu ciy bàyyi xel mënu koo ignorer waaye faw xelam dana ci dem te dana doon mbir moo xam ne mbir mu ñu fàttaliku lay doon bu noppee ci loolu nag war soobu ci suñu tomb waxtaanu tey boo xamante ne moom lañu war a tàmbalee waxtaane muy lu jëm ci wàllu yar dafa mel ne jamono yee jàll ñi ngi doon waxtaane alquran doon waxtaane jikkoy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu war a tàmbalee waxtaane nag lu jëm ci wàllu yar ndax yar buñ koy wax léeg-léeg moom lañuy wax éduquer wala éducation ñun dañ koy wax ba noppi waaye buñ boo demee ci biir yëf yaag ni ñu koy dundee day doon am njàngale waaye njàngale ma du ànd akub yar te nag wa yuallimuhumul kitaaba ca aaya joojee wa yuzakkihim da caa nekk te mooy mu yar leen ba noppi jàngal leen daa mel ni nit ki sax li nga koy jàngale mu xam danga koy yar waaye boo ko yaree ci biir yar bi da ko ciy xamal te loolu mooy nga yee ko ba mu yeewu waaye nga yar ko mooy tax mu nite yar lu am solo la ci njaboot lu am solo la ci njaboot wàccuwaayu société la boo xam ne euh, société bu ne war na koo sonne ci individu yi war na koo sonne ci mbooloo mi ba nga xamante ne wàllu yar dañ ci bàyyi xel bu baax a baax mu nekk fondement ci société bu rëy léeg sax dañuy wax buñ ko tegee ci pénc mi rek ñu ne ki war a yar kan la xel yëpp day daal di dem ci jigéen ñi maanaam mooy yaay yi ñu ne yaaykat moo war a yar ndax mooy école bi njëkk al ummu madrasatun loolu la woykat ba waxoon isaa ahdattaha ahdatta shahban nee na ndey daal mooy école bi nga xam ne buñ ko waajalee rek waajal nañ aw askan ci ak mbaax ndekete yoo ginnaaw yaay mooy yar moom war naa yaru ba noppi kon nit ki war naa tànnal doomam yaay ndax yaay moom laa wax ne la mooy yar mooy yarkat bi nga xam ne moo jiitu ci yar bi te itam mooy taxawee yar bi ba yar bi gën a yaatu lool te gën a te gën a mat lool yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale na ci lu bari ci wàllu yar moom nag nee na borom bee ko yar ba noppi rafetal ni mu ko yare adaba nii rabbi fa ahsana bi loolu la wax saa boroom moo ma yar ba noppi moo rafetal sama yar moo tax mu royloo ñu ko moo tax moom mi mu yar defar ko moom la ñu royloo muy yonent bi alayhi salaatu wasalaam Oustaz Alioune Sall ci njàngale mi day faral di wax ne suñ borom daa opéré dënnub yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ko opéré génnee ci moom jikko yu baaxut yépp waaye nag yàlla nekkatu fi nag di ubbi ab hôpital boo xam ne dañuy jàpp ñun ñëpp di ñu ni mu defoon yonent bi mu ne ñu kii moom opéré naa ko ba mu mel ni ma bëgg mu mel ko léegi nag yéen ñi bëgg a baax ñëpp jéem leen koo toppandoo ku ko toppandoo rek ba mel ni mel rek daal di tàmbulee baax mel ni nga war a mel loolu mooy ab yar nga xamante ne koo xamante ne may nañ la ab yar deseeral tuñ la dara ndax dana jariñ aw askanam dana jariñ boppam dana noppal boppam dana noppal ay way juram moo tax ku jur yaral ku jur yaral ndax ku yarut danga yërëm yërëm maanaam bis dana ñëw nga nga yendu bëccëg boo xam ne danga xam ne sàggane guñ sàggane yar moo tax kooka yeddu ci bëccëg boobu nga xam ne buñ ko doon xool dañ naan xéewal la goo xam ne nit ki da koy fàggul njabootam tàmbulee ci bu dee jigéen nga tànnal sa doom yi baay ba buñ màggee ci pénc mi wala ñu wala ñu gimmi gis genn góor mu toog ñu ne kii mooy sama baay duñ gis yeneen baay ci koñ bi ñu ne lu tax sama ba lu tax sama yaay tànnaluma ci xeetu baay yi yar bi foofu lay tàmbulee maanaam du ne lu tax ëwma xeetu baay yi tànnal sa doom baay boo xam ne daal bàyyeewut mën naa doon góor waaye du baay ndax du góor ñëpp ñooy ay baay du jigéen ñëpp ñooy ay yaay moo tax loolu dañ koy tànnal doom dañ koy tànnal doom ba noppi dañ ciy wax ak moom da ko ci yee yar ko mooy tax buy bëgg mu xam ki muy bëgg ndax ñàkk yar mooy tax nit dem ba toll ci nopp gis góor rek jàpp ne kii dama koo war a nopp ndax góor la waaye xamul ne kii matut baay ëpp naa am ak moomi doom ëpp naa am ak moom i doom dana la gàcceel ci pénc mi say doom danañ la mere waaye buñ la yarut yow mi ci toll bu la say waajur di moytandikuloo doo leen dégg da nga leen di diir mbagg bara defee rek ñoom ni leen wane ne ki ma bëgg sama yaay daa bañ wala sama baay daa bañ te fekk dañoo gis loo gisut moo tax loolu waajtaay dëgg la laaj bu dee góor itam mu tànnal boppam mu tànnal ay doomam yaay ba nga xam ne duñ màgg mukk ñuy gis seen yaay comportement comportement boo xam ne duñ ne sama baay lu tax mu tànnal ma yaay ju mel nii nga xam ne ki ngay dénk sa bopp ba war a am ak moom njaboot doom di sosu ngeen koy séq yéen ñaar ñëpp li ma bëgg a wax mooy war ngeen a xoolante foofu la yar bi di tàmbulee ndax yaay ji mooy yar kon danga koy tànn bul jàpp ne jigéen ñëpp mën nañ ay yaay jigéen ñëpp ay jigéen lañ nag mën nañ ñoo doon ay jabar ci yow waaye nag doon jigéen ju mat yaay doon yaay ba noppi yaayee di yar du ñëpp ko man am na ñoo xam ne da leen di xool rek xam ne ñi ay yaay lañ waaye am koo xam ne ni muy traité doomam ak ni muy comporté woo moom dangay xam ne dañ koo wax ne ko yaa ko jur waaye tënewu ko tënewu ko magu ko rëwu ko gënu koo nite ëpp kom xel waaye nag nee nañ ko yaa ko jur nga xam ne kii moom wax dëgg yàlla bu fekkonte ne doom ak doom dong la moom am doom wàccoon na ko ndax waaja luñ ko ba mu mën a waajal kenn te moom ci boppam daa war a waajalaate kon yar moom njaboot dimbali ko ci ab yar farata la moo tax dañ koy ñaan sax ab yar sax dañ koy ñaan nit day ñaan boromam mu may ko njaboot waaye mu ñaan boromam mu may ko mu am njaboot gu baax day ñaan boromam mu dimbali ko ba mën a yar njabootam waaye nag daa bokk ci loolu itam dañuy waajal njaboot ci wutal ko ay royuwaay yu baax maanaam ay exemple nit dangay wutal sa njaboot exemple di waxtaan ak ñoom fexe bañ am ñu ñu roy ñoo xam ne ñu baax lañ ndax di roy nit ba noppite te bëggoo koo nuru kenn daa xamul lu mu doon maanaam yow nee nga da ngaa bëgg a baax waaye ki nga gën a fan baaxut ba noppi te moom nga fan ab bandi nga fan boo xamante ne jikko yi muy def benn baaxu ci waaye yow jikko yi muy def dalaa neex ba nga fan ko waaye bëggoo ko nuru te yow kooku lañ la royloo moom lañ la teglooti tànkam nga ne yaral ma waaye bu la nuru olof yi ne nañ loolu mënta nekk moo tax at tarbiya bil qudwatil xasana ci yu am solo yi la bokk mooy dimbali nit dimbali doom dimbali xale ci yar ko waaye tànnal ko bu baax a baax a baax nag nga xamante ne moom la war a roy ki nga xam ne moom la war a topp loolu dafa am solo moo tax ma waxoon la ne dañ koy ñaan Ibrahima da ko doon ñaan doon na wax boroomam rabbi ijal nii muqima salaati wa min zuriyati yàlla maa ngi lay ñaan nga def ma ma déggal la ba mën a taxawal julli man ak sama njaboot rab bi rabbi habli min ladunka surriyatan tayyiba innaka samiu du'a yàlla nag ma may sët yu baax yow mi nga xamante ne yaay dégg ñaan noonu la ko euh, noonu la ko ki nga xam ne mooy Zakariya doon ñaane ba muy ñaan boroomam subhaanahu wa taala doom kon dañu gis ne yonent yi alayhimu salaatu wa salaam ci wàllu yar nga xamante ni ñoom lañu yàlla royloo indil naa la Ibrahima léegi ne la da doon ñaan boroomam mu dimbali ko may ko njaboot gu baax ba mu ne muqiima salaati yàlla may ma ma mën a taxawal julli waaye wa duriyati te bul fàtte ne ba mu ne yàlla li nga ma defal defal ko samay doom yàlla da ko ne na say doom yaru say doom boo bëggee li ma fi nga nekk ñu nekk fa nañ yaru ba mel ne yow boo demee ci Zakariya mi ma la wax léegi mooy bàyyi Yaxya ba muy ñaan doom boroomam mu may ko Yaxya dafa wax ne ko rabbi habli min ladunka waaye zurriyatan tayyibatan innaka samiu du'a moo tax muy bàyyi Yaxya te mooy askan wu tedd woowu nga xamante ne mooy famille Imran jullit yëpp kon noonu lañu war di ñaan borom bi subhaanahu wa taala ci wàllu yar nga koy ñaan borom bi tey góorgóorlu di ci dox rabbana hëb lana min azwaajina wa zurriyaatina xurrata ayunin wajal naa lil muttaqina imaama ak ñaan la yaa ngi wax yàlla naan ko yàlla yàlla nag ma may jabar ju baax yàlla yàlla nag ma may doom yu baax waaye na nga ñu booleeg ñi nga xam ne dañ laa ragal loolu mooy ñaan borom bi subhaanahu wa taala mooy tax boo boobaa nit ki day man a delluwaat ci man a sant boroomam subhaanahu wa taala da koy sant ci xéewal yi mu ko defal di ko mën a fàttaliku waaye di man di ñaan boroomam subhaanahu wa taala li ma bëgg a wax mooy li ngay ñaan dee ci bàyyi waale xel di ñaan borom bi mu dimbali la ci sa njaboot ndax lu ko mooy ñu doon fitna ci yow am na koo xam ne stable nag poñ ci mu dëkk kenn mësu koo yeb kenn mësu koo dégg ci naka su noonu kenn mësu koo xeeb waaye mën naa am doom ju yëruwut tax ku ko wërta yab yab ko mën naa am doom yaruwut tax muy dugg ci naka su dul noonu moo tax doom da nga koy yar danga koy bàyyi xel ba noppi danga koy wute da nga koy wutal ay àndandoo da nga koy wutal ay àndandoo ndeysaan ni ko sama jigéen bu baax bee di defee ca parcelle soxna Xadi Silla yal na ko yàlla sàmm léeg mu ne rek maa ngi lay dénk sa jarbaat maa ngi lay def nangam mu nekk aw sas wu rëy woo xam ne li nga ciy dégge mooy kii de bu sañoon bu doon ak mbaax day jaay ci bitig da koy jënd rek wékkal ko doomam bu doon jom day jaay ci bitig da koy jënd rek solal ko doomam waaye li muy wone foofu mooy di wone ne amal référence amal référence rabbi awzi'ni an askura nixmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an axmala saalihan tardaah wa aslix lii fi zurriyati inni tubtu ilayka wa inni min al muslimin loolu mooy ak ñaan ku baax loolu lay ñaan yàlla yàlla nag ma xéewalal ma man laa sant ci xéewal yi nga ma defal waaye nag ma xéewalu ma mën a jëf-jëf ju baax joo gërëm waaye yàlla nag ma defal nag njaboot gu baax nag ma defal njaboot gu baax njaboot gu baax goo xamante ne danañ mën a topp tànk yi ma jaar te fekk dama baax ndax mbaax mbaaxu nit dong doyut day baax ba noppi waaye góor góorlu ba teg ak njabootam ci yoon wu baax mooy tax mu mën a àggale li nga xam ne mooy ay mébétam lu ko moo ñu yàq sa programme wa inni xiftul mawali min warai wa kanat imraatu waaye nag fa habli min ladunka waliya yarisu nii wa yarisu min aali yaqub waj'alhu rabbi radiya loolu la Zakariya ñaanoon yàlla man kat maa ngi góor góorlu ci tool bi di bay sama kemtalaayal kàttan waaye amaguma doom te damay bañ nag ma faatu programme bi yàqu moo tax ma bëgg nga may ma doom waaye na doon doom ju baax joo gërëm na doon doom joo xam ne mission bi ma nekk daf ma koy àggaleel liggéey bi ma nekk di ci góorgóorlu bu ñëwee daf ko yokk waaye du ko wàññi loolu mooy ñaanu nit ñu baax ñi waaw góor góorgóorlu woon ba jafal ko dañ daan ñaan am njaboot goo xam ne bu ñëwee dañ koy àggale ndax walladina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi imaanin alxaqnaa bihim zurriyatahum wa ma alatnaahum min amalihim min cheyin kullu mriin bi ma kasaba rahina borom bi subhaanahu wa taala nee na ñi nga xam ne dañoo gëm ñi nga xam ne dañoo gëm nee na seen njaboot yi nga xam ne dañ leen a topp ca ngëm ga ñi gëmoon ba góor góorlu ba am garaad yu kawe yi seen njaboot ga jaar fañ jaar danaa leen yéegal fa ma yéegal seen way jur ya ci seen góorgóorlu ga moo tax li ma bëgg a wax rek mooy góorgóorlu dafa am solo lool mbokk yi yar am na solo lool moo tax dañuy soxlawoo ci di ñaan borom bi subxanahu wa taala mu dimbali la ci am njaboot gu yaru waaye da ngay góorgóorlu nag ci. di yar sa doom yar bu baax ndax loolu da koy dimbali ci dunduk àdduna da koy dimbali ci dunduk alaaxira borom bi subhaanahu wa taala nee na yaa amanu xuu anfusakum wa ahlikum naara wa quuduha annaasu walxijaara alayha malaaikatun xilaasun shidaadun laa yaxsuuna allaha maa amarahum wa yafaluuna maa yumaruun yàlla nee na yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm na ngeen yar seenu njaboot na ngeen yar seen bopp te yar seenu njaboot moytandiku leen ma te moytandiku leen ma seenu njaboot waaw mooy yaru leen te yar ñi ngeen yilif xuu anfusakum wa ahlikum waaw leen seen bopp waaye yar leen seenu njaboot ndax yar boobu moo leen di musal ci sawara sawara wi nga xamante ne nit ak ay doj ñooy doon matt ma waaw ñooy doon matt ma nga xam ne kon ki yar doomam waxuma yar bi da koy noppal fii ci àdduna waaye yar bi da koy dimbali ëllëg yowmal xiyaam fi mu ne ay xare ki bëyee ki nag buñ juddoo rek da ngay bàyyi ñu dem di cëpp-cëpp ci kër gi di tuur ak a yàq waaye buñ màggee te nga bëgg ñu jariñ la da leen di yeew di yefal di xont ngir mu jariñ la doomu aadama nag bi mu juddoo daa dul di dox ci saa si ndax yàlla daa bëgg ñu yar ko muy raam di nàmp ñu koy boot mu ngi bëgg nga tax ak moom de lu mu def nga defal ko ndax daa bëgg nga di ko jubbanti moo tax bu màggee dañ koy bàyyi mu dem kenn dootu ko yeew buñ ko yeewee rek caaxaan jeex na ci moo tax kuñ bàyyi ñu dem te téyewuñ la yar la bu boo demee ba doon mag ñu yeew la yedd la waaw moom kay day doon ndaw ñu uuf ko teete ko yar ko wutal ko ay royukaay wutal ko ay yum teg ci kanamam ba noppi yar ko ba mu am lu muy jomb am lu muy rus am lu muy ragal waaye nit koo xam ne jombut dara nit koo xam ne rusut dara nit koo xam ne ragaloo dara doon ko féttéerlu rek wow bët lu ne mën na laa dal moo tax bu boobaa dañ koy yeew ci yeew ko lay mujj rek tank takk tànk ak loxo ya wala takkal ko ay manoot ay lam ñëw taxawal rek ci yëf ya bu ko defee la ci ëpp sàggane ab yar moo ko yóbbu ba nit ki amul dara lu muy seexlu ci fànn googu yàlla nañ ci yàlla musal moo tax luqmaanul xakim ci wàllu yar buñ ca delloo danañ gis ne bari na lool lu mu doon wax yaa bunayya kon ma ngay yar doomam ku yar dangay wax bu benn waajur ragal a wax ak njabootam comme li xew léegi nga xam ne waajur dañ waajur yi dañoo ragal njaboot yi waaw ndax njaboot yi ni ñuy tontoo waajur yi tax na waajur yi ragal a wax ak ñoom doo jox sa doom benn conseil buy def naka su du noonu sax da koy jëw waajur woo xam ne daa ragal doomam ba di ko jëw bala ngaa wax ci moom daa génn daray àdduna jërul loolu na ngay wax ak ñoom ci seenu fekke ba noppi di leen conseiller moo tax yaa bu nay ya bari ma ngi koy yar ci digganteem ak boroomam ne ko yaa bu nay laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim doom kaay mu ñëw mu ne ko bul bokkaale yàlla mukk bokkaale ak tooñ la kon gis nga mi ngi digal doomam di ko moytandikuloo bokkaale di ko digal ak sellal di ko digal ak wéetal borom bi subhaanahu wa te loolu jikko yu baax la li ma bëgg a wax rek mooy kilifa guy yar da ngay wax yaa bu ne ya aqimi doom na ngay julli seetal loolu nga xam ne da dëkk ak nit ci kër gi sa doom waaye ñemewoo ko wax ndax julli nga bu julleeg bu julliwut sa yoon nekku ci yow jàpp nga ne sa mbaax gi daal mooy yow mi yaay na sol sollu jot nanga nangoo julli yow miy bàyyi nanga dem ci jàkka ja nanga nga def nangam waaye doom moom garaawut doom ji moom nga bàyyi ko rek mu nekk ci ay cëpp cëppeem ak yooyu ñimewoo koo wax dara daray àdduna jërul loolu moo tax aqimis salaata la ko wax door koo wax ne ko wa amur bil maaruf wanha anil munkar waaw del góor góorgóorlu ci baax tey sori ak mbon tey muñ la ciy fekk allahu jikko yu baax yi nekk ci aaya jooju nga xamante ne luqmaanul hakim indil na ko doom ji buñ ci dellu si taxaw ci ci wàllu yar liñ ciy gis lu yaatoo yaatu lay doon bu ñu yàlla may ñu dund ba suba yal nañu yàlla may ñu dund ba suba te weesu ko daañu ci ñëw insha allahu taala ñëwin bu gën a yaatu ci diggante luqmaanul hakim ak doomam jooju ci wàllu yar ci yaa bunnaye yooyu waaye itam dellu siwaat ci bunt bi ñu ubbi te mooy wàllu yar bañ yëg ndaw ci boppam daa war a yaru ndax ci moom lañ koy xaare ñu war koo waajal waaye ndaw li buy yaru mag a koy yar kon mag ci boppam daa war a yaru tey góor góorlu ci yar boppam mooy tax penc moomu mën a yaru yaru nag du nit ku toog ne ci yàlla rek yuuru doo waaye day fekk ak xam aku xàmmee waaye góor góorlu ba yaru ciw làmmiñam yaru ciw doxinam yaru ci jëfam yaru ci li ñëpp bokk yaru ci boppam looloo ko yóbbu ci mu yaru ci digganteem ak boroomam yaru ci digganteem ak i moroomam pénc moom mu day dekk pénc mu jag moo xamante ne menn penc dootu ko gënati yal nañu yàlla boole sàmm yal ñu yàlla boole nangul yal nañu yàlla boole taxaw moom mi nga xam ne ku jàmmal nga am jàmm yal ñu boole defal jàmm moom mi nga xam ne ku mu wétli doo wét yal nañu li te def dëgg muy suñu gàllaaj ak suñu àndandoo yal nañu musal ci seytaane te sàmm leen. ñoo ngi leen di ndokkeelaat bu baax a baax ci anniversaire wu Sud seen rajo bi ci benn fan ci weeru juillet bi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 wa adada kamalihi seen mbokk Mbàkke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu allahumma aafini fi badani allahumma aafini fi sam'i اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت أذكار الصباح حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم